marché bi dafa salte deux ans ngi nii kenn raxasu ko chaque six mois dañ ko waroon raxas nanguñ ko raxas nanguñ ko def dara mbalit mi di fi tege chaque fois oto mbalit bi ay dix heures lay ñëw lu toll ne marché nga toog fi dix heures barre rue dix-neuf bi nee na da ngay tonni mbalit mi kon nag loolu noonu lañ ci war a jóg war cee taxaw leneen lu ñu bëgg a wax mooy mbiru sécurité <clears throat> gis nañ ne marché yu bëree ngi tàkk te dafa am ñoo xam ne ñu ngi ci kaw marché ti leen fii di nekk kaw terrasse bi di fa di fi def lu nekk lu lu dul yoon

na jàpp ci lii fexe lijjanti lii sotti lii mu gaaw ndax du dara ndax commerçant bu demee bay kaas mbiru cet di kaas mbiru désencombrement nga xam ne yaa problème kon na problème boobu nañ ko régler nu mu gën a gaawee ñun ñii ñëpp ñoo fi nekk ànd doon benn suñ doon doon benn def nañ pétition jox ko ko pétition baa ngi nii ñëpp xam nañ ne kii ni pétition baa ngi nii ñu ko signé bëri donc nañ xam ne pétition bii nii waa marché bi yëpp ñoo ko signé jox nañ ko maire bi jox ko préfet jox ko gouverneur luñ fiy kaas lépp mu ngi ci kon marché bi nañ fexe nekkuñ fi di xeex kenn lu ñuy xeex mooy maanaam suñu suñu wér-gi-yaram lu ñuy xeex mooy suñu ñu aar ñu lu ñuy xeex mooy suñu koom-koom yokku ndax marché Tilène nu mel amul benn marché bu ko mel moom mooy loo xam ne produit boo soxla di nga ko fekk marché Tilène te moom mooy weenu Médina mooy nampal Médina lépp lu fi Bamba Fall def ci marché bi la koy jëlee kon nag nañ fexe ba nga xam ne loolu noonu na nañ ci taxaw lenn nag mooy lan mooy def nañ point de presse bi incha allah bind nañ ko étape bind nañ ko pétition def nañ point de presse bi ñu ngi koy toog di ko déglu leneen yeneen plan d'action yi xam naa après incha allah bu dee réglé wul danañ def yeneen plan d'action mais pour le moment ñun lépp ci yoon lañu koy jaarale.